الرحيم أمدي وسكر لمن كل بسارة لورد دون سوء تنين دسر سارة لو سرى إواري wanin bila siqaatin musxaadali min bani daymaana ansaara sëriñ Sidil Muxtaar Mbakke xalifa général di murit yàlla na fi yàgg te wér ci kilifteefuk sëriñ Moodu Muxtaar Mbakke moom sëriñ Cheikh Awa Balla ci teewaayu sëriñ Basiru Mbakke moom sëriñ ab moom sëriñ Cheikh Coro sëriñ Baara Mbakke moom sëriñ Cheikh Baara Xuraja noo ngi fii ci saamuk sëriñ Baara Xuraja di waajal bis bu mag bis bu rëy di bisub julit di bisub l'islam waye di bisub taalibeb serigne Touba ko xamé ni serigne Touba rek ko ñor serigne bi lay waje mom lay walé ci ay kaddom ak ay jëfëm muy serigne Gana mesere makhtar di waxtaan di waxtaan nup serigne Touba tambalé serigne Touba yam ci serigne Touba moy wajal bisub magal bi nga xamé ni da ko da amal at mu jot ren ji nak magal gi wara don le le premier janvier dëppoog bisub alxemes le premier février dëppoog bisub alxemes fii ci saamuk sëriñ Baara Xuraja bis bi nag ren ji mu duppee ko koo xam ni ñëpp ràññee nañ ko ci ëttub sëriñ Touba muy sëriñ Ibrahima Diop almashari waaye itam mu tuddee ko itam sëriñ Touba Diouf jàmbaar ja waaye dara jaale ko nag sëriñ Mortala Fall di wëllëreem di xaritam yàlla boole leen ci rajo bi ñu ciy liggéey waaye yàlla boole leen ci ëttub sëriñ Touba ñu di ci liggéeyal sëriñ Touba. Wajal bis bobu nak lolo waral kilifa yaangi ni tew serigne sëriñ cioro mi ngi ni tew li leppam waye serigne bara Mbàkke mom serigne Cheikh bara Xuraja mi ngi ni tew momit bu waxe ci turu saamuk serigne bara Xuraja moy dalal mbolo mi dana melni lepp matna waye nak serigne Moussa Diop mi nga xamni moy wax ci turu keur sering Ibrahima Diop Al Masari. momit mi ngi ni tok waye Baye sëriñ ci turu keur serigne Touba Diouf moom it bokk ci ñi nu tudde bis bi mi ngi nii toog waaye nag Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne ni mooy wax ci turu Serigne Modou Muxtaar mi nga xam ni mooy buntam ci Serigne Touba moom it mi ngi nii toog dana jël kàddu bu noppee nag danañu jox kàddu gi Serigne Abdoulahi Diaw moom mooy wax ci turu soppe yi nga xamee ni ñooy soppe Serigne Gana Messere bu ñu noppee ñu jox kàddu gi Serigne Salihu Ñang moom mooy wax ci turu Serigne Mortala Fall mi nga xamee ni moom la ñu dara jaale bis bi moom it mi ngi nii toog waaye Serigne Moustapha Guèye di kenn ci Serigne Gana Messere ñu xam seen diggante ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp ànd di liggéeyal Serigne Touba looloo waral Serigne Moustapha Guèye moom am si Guèye mooy wax ci turu Serigne Gana Messere danañu jox kàddu gi itam Serigne Ibrahima Niang mi nga xam ne daa bokk ci ñi ànd ak Serigne Gana Messere di ko jàppale ci liggéey bi mooy wax ci turu organisation bi bu noppee nag danañu jël kàddugu mujj gi jox ko Serigne Bassirou Thioro mu wax ci turu mboolem jabatug sëriñ Touba gi yëpp ñaanal mbooloo mi kon daal mbokk yi bis baa ngi noonu nekk la premier février alxemes fii ci saamuk Serigne Baara Khourédia looloo waral jataay baa ngi ni ñu maa si déglu kàddu yi. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalib yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax turu Serigne Bassirou Mbacké mi euh, di fi jëmmi Seexul Xadim jotaay mu ne loolu du ca mën a ñàkk kon Mbacké ñoo ngi leen nuyu bu baax. di nuyu suñu bokk yi ñu fi bokk teew nekkal ñépp ak suñu bokki taalibe bi yëpp di am mbégte ci jotaay bu tedd bii nga xam ne toog nañ fi ngir mbégte toog fi ngir xol bu sedd guy yu tooguñ fi ngir ñàkk pexe jotaay la boo xam ne xamewuñ ko benn jotaay bopp murit bu ndigal am sëñ Gana xolam war naa sedd xelam war naa dal ndax ab jotaay bu ca Maam Mor Jaara nekk Maam Cerno Birahim ne ci Sëriñ Tuubaa jiite biir jotaay ba seex sa na biir seeni taalibe na ca biir boobu jotaay benn jotaay ëpp ko waaye nag ku war a am loolu la nag ndax njort naa ne ñu fi daje ñëpp fay si bor la jéem ci moom même bu leen lebalu tit lebal lebal na kenn amul ku dul moom mu jëmi xaadim xaadimul xadim ba tax na bis bii maa ngi soññ ñépp rawatina biir saam moom soññ gi xanaa daa munta ñàkk ñu tudd ko waaye ci lan lu fekkoon laata lii di si kon noo ngi dollee soññ saam ak li ko wër lépp te xam ne suñ ngànna suñ ngànnam Sëriñ Tuubaa la daje fi ngir ne suñ ngànna mesere ba muy doon suñ ngànna mesere bari sëriñ bi ci tàbbi ba ñu ñëpp ñu yëgal ko suñu bopp moo fi dajale ñëpp kon nag noo ngi am pas-pasa fii biñ ci amee ndigal ba noppi nag fas yéene koo waajal ñëpp nu nuy waajalee suñ bis bii ñu doon def barki démb tam wees muy bisub sëñ Baara Xuréja bi noo ngi fas yéene bis bii ñu waajale ko noonu mbaa nu ko raw dama ko waxoon ne na sa xel dal na sa xol sedd baatin bi sëñ tubaa gàddu na ko gàddu na saayir si li des nag mooy nu bànneexoo ko te jëm koo ànd ak yow noo ngi bànneexoo na dëkk gim dëkk ak nun nag ndax fi nun lay xëyee fi nun lay gonte waaye waxtu fi xëyee liggéeyal sëñ tubaa lay def te saa bu yit dana andi njariñ bu fi gontee liggéey li sëñ tubaa lay def su su desee it andaale njariñ kon sëñ Basiiru noo ngi lay sant bu baax jëmm ju baax a ngi nii appel loolu waru ci am sax waaye des koo mënta ñàkk sant ndax damaa xam ni mu toge ni mu ni loxoom sëñ Gana te ma damaa yegg foo xam ne ku ko teggi ma teg ci ngir jëmmi sëñ Tuubaa moo tax ku ma ci tegandool nag maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm di nuyu nag sëriñam si di wàkk sëriñ Mourou Mokhtar asalaamaaleykum wa rahmatullah rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi wax ci turu sëriñ Cheikh Ibrahima Diop xalifa Cheikh Ibrahima Diop almasariyu ginnaaw bi mu yóbbantee am nuyoo ci serigne basirou mbake Coro ak serigne Gànna Mesere mi mi waral wote bi neena bis bi nga xamne moy bis bi serigne Gànna Mesere jël te jox cër bi Cheikh Ibrahima Diop almasar yu ñor nako lol ba tax mu yabal nu ngir ñu fessel wote bi neena nak mi ngi wo kep ko xamne ku aju ci keur Cheikh Ibrahima Diop almashar yu nga wala nga dib sopem wala ngay safo ab liggeyam bim doxali digentem ak Serigne Touba ta liggey bi Serigne Touba geureum ko Serigne bi nak neena mi ngi koy yëgal ñepp waaye di wo jëwriñam Serigne Cheikh Bayla Diop khalifa Serigne bakay Diop waye nee it wote bi buñ ko tudde mi ngi wo mbollem talibi yi aju ci kër gi liko awale ci katcha mak ca mbokki talibi ci njital alhaji Omar Tal, ak serigne Abdou Wahab Dia waye nee it mi ngi wo mbollem sedi mor, te kam kam ci jital ci sedi moy soxna fati mor akung Nia na bis bi fos na ci yene feñ ndax sëñ Gana de negul batay mu jox Cheikh Ibrahima djub almasari ab tir waaye kuko ko ku fes la ci ab liggeyam bi mi liggéeyal sëriñ touba mom sëñ Gana lu bare bare tam aw ci mbindum Cheikh Ibrahima djub almasari yu bi nak nee na bis ba fos na ci yene feñ tay wo kep ku aju ci keur gi wala nga dip xarit wala nga dip soppe wala nga dip talibé bu aju ci keur Cheikh Ibrahima djub almasari ñi ngi gàttal fofu kaddi wa salaamu alaykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa salatu wa salam ala asrul mursalin assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen bokki julit yi bokki talibi yi bokki dëkkandoo yi serigne bi mag ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tura ak sant te di leen siyaare di leen balu xàq di leen baal xàq di ñaan yàlla suñu borom bool ñu jégal sëriñ bi nee na ginnaaw bi mu sante yàlla di julli ci yonantoom bi sallallahu alayhi wa sallam di sant seex na Amadu Xadim maanaam a ngi jot li cant goo xam ne nii dafa jóge ci kilifa yi nekk saw jant ñuy waa ko sëñ Daaru Moor ak waa ko sëñ Daaru Seynabu ak waa ko sëriñ Tuubaa ci jëf ji nga xam ni moom la suñ gànn def mu jëf ji rafet joo xam ne ni dafa matale lépp ci lislaam ak dëkkandoo ak ngor ak taalube ba tax mu fa bis bu toll nii maanaam tudde ko lenn ci mag ñi ci Serigne Diouf Serigne Touba Diouf bokkante mag ñi nga xam ne nii dañ doon liggéey Serigne Touba ba am ngërëm Serigne Touba tudd googu ma ko tudd na Serigne bi nee na ma ngi ci woo bépp jullit bépp taalibe bépp dëkkandoo bépp xarit bépp soppe boo xam ne am nga cofeel ci Serigne rek ak foo dëkk sow jant Serigne bi ma woo ne bis bi daal amul loolu lu ko féete kaw wax dëgg yàlla ndax jëf ji toon ni daal kuñ ko jëfee daal kooka daal mun laa fay kon suñ gànn Serigne bi nee na ma ngi lay sant di la gërëm te di la ñaan yàlla lii ngay woote yàlla na ko yàlla wuyu. barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñoo ngi leen di siyaare yi itam ginnaaw loolu ñu ngi jiital ci nuyoo bi sëriñ Mouhamadou Bassir moom Serigne Cheikh coro di nuyu sa bokk yi nga fi bokkal yëpp ma dégg nga tudd ci waa kër Mamour Diarra boroom Sam dégg tam nga tudd ci waa kër Borom Darul Moxti ñu ñëpp ak mboolem taalibe yi. ak bokk yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax di beral ab nuyoo gan na mesre Maxtaar mi nga xam ni jotaay bii tey moo waral daje bi am ñoo ngi bëgg lool ca daje yu njëkk ya di bëgg ci daje bii ñu daje tey di bëgg ci daje yi jëm ci suñ kanam ndax yëpp yaakaar nañ ci ngërëmul Sëriñ Tuubaa yal nañ ci daje ak moom ni ko bokk yëpp waxee rek noonu la demee Serigne Ganna Messere Maxtaar ku ko fekk si ku ne da koy fay ndax daal lebele ñëpp fi Serigne Touba Xadimu Rasul yemu ca kenn ku ne mu dugg ci sa kër ci sa pët defal la fa loo xam ni ca ña ko njëkkoon kenn mësu nee mel kenn la ko Serigne Touba mës sa jaral wala kenn mësu fa àgg ñii mu jamonoonteel itam mujj na di roy ci moom ci diggam ak Serigne Touba ñi ci kanam ñëpp it kenn ku ne aw doxinam rek ngay jéem ci Serigne Touba kon nag euh, Serigne Ganna na nga xam ni. ci njiital xalifab Serigne Mor Diouf Diatty di Serigne Thierno ak mbooleem ñamu njaboote ñëpp bëgg nañ ci turandoo wii nga jox sëriñ Touba Diouf di suñ kilifa di keno ci ñun waaye di keno ci kër borom Darou Moxti di keno ci kër Serigne Touba nga xam loolu ci moom amuk cofeel ci moom topp ko ba xam mooy kan tax nga def màggal gi biir bu néew nga boole ko ci biir ñu ngi ko tudde di ngir war cee waxtaan ay jikkoom loolu sëriñ bi yëg na ko bëgg na ca loolu siggi na ci itam moo tax mu yebal sëriñ du boole ko ak ñun ngir ñu ñëw fii fi jotaay bi tooge fi jëmmam tooge fi jëmmi ay rakkam yëpp sëriñ bi nag nee na mi ngi woo mbooleem koo xam ni sëriñ Mor juf Jatti moo dox sa digg ak borom Touba nee na mi ngi woo mbooleem koo xam ni sëriñ Daaru Seynabu moo dox sa digg ak borom Daarul Moxti nee na ak mbooleem soppey sëriñ Touba Diouf ak i wëllëreem ñëpp mi ngi leen di woo ci bisub sëriñ Ganna Messere Maxtaar bii di and ak ñepp di ñaan suñu borom àggaleen ci jàmm te la mu ci yene lepp suñu borom dajale ko ci ak lu kawé ñortam ba man ko def at yàgg yàgg yàgg. shaytan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñong leen ni nuyu bu baax di jiital ci nuyu bi Cheikh mohammed Basir ak sa mbokk yi fi tok ñepp wa keur mamour diara ak mbollem cheikh yi fi nekk ñepp ma ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Makhtar mbake mii buntu Gana Messere ñii ci kër sëñ Touba waaye di leen nuyu it tey wax ci turu sëriñ sii Sidi Mbacke mii mag ci sëti sëriñ Cheikh Awa Bale ak sëñ Aliou Mbacke moom sëñ di wax it ci turu sëriñ Khalil Mbacke mii taawub sëñ Modou Makhtar ak sëñ Sidi Rakam ak sëriñ Jiir ak mbooleem njaboot sëñ Modou Makhtar bi sëriñ Modou Makhtar yabal ñu fi ci bisub sëriñ Gana bi muy sant sëriñ Touba sëñ bi nee sëriñ Gana ni ngeen xam ne ma leen koy seereel taalibe bu gërëm la bisam bii nag mu ci sant sëriñ Touba man damay dama naan bis bi moom lépp jag na ba noppi ndax li mu boole moo bari ndax sëriñ gaana ku ne xam na ne ci waa kër sëriñ Cheikh Awa Balla la bokk waaye kii mu tudde bis bi di sëriñ Touba Diouf euh, di waa kër borom daaru Moti ku ne xam na ne sëriñ Cheikh Awa Balla ba mu liggéeyloo sëñ daaru juuf ab liggéey bu amoon solo ba mu ko defee ba àggal koo sant gërëm ko boole ci cant loolu yëkkati doomam jox ko ko mu nekk fa ba doomam jooju noppalu mu yëkkatiwaat beneen doomam jox ko doomam boo mu ko mujjee jox ak Serigne Modou Makhtar ñoo bokk ndey ak baay kon bu yàlla dogalee tey jii ngay def lu mel nii tudde ko Serigne Touba Diouf te loolu yëpp doxoon fi te yow itam bi la Serigne du Makhtar sante gërëm la ba ngërëmam àgg fa mu war a àgg dafa yëkkati doomam jox la ko kon nag ma njort ne bis bi moom lépp yàlla nangu na ko bon pare te sunu borom ci boppam moo wax ci alxuraan ne wa amma bi neex ma nihmati ko fa xaddis képp ku la defal ay xéwal booba dafa tudd xéwal yi mu defal yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ba muy jeexal ca saar wax mu wax ko ko nag lépp bu la yàlla defalee ay xéwal da koy sant kon nag lii sant Serigne Touba ci xéwal yi ko Serigne Touba defal Serigne Gana ñu ngi la ciy sant bu baax Serigne Modou Makhtar nag mi ngi woo bépp taalibe képp koo xam ne yaakaar nga Serigne Modou Makhtar waaye képp ku yaakaar Serigne Cheikh Awa Balla rek Serigne Modou Makhtar mi ngi lay woo ci bisub Serigne Gana Messere bii maa ngi woo alaaji sumbu si la mi nga xam ne si ni mooy jëruñu sëriñ Modou Makhtar jiital taaliba yëpp waaye it ci Touba gi di si jiital sëriñ Sidou Xumba mi euh, nekk ci daayira Touba bi bu waxee sëriñ Sidou Xumba rek daale naa mbooleem président daayira yi nekk fii ci Touba sëriñ Modou Makhtar daal nee na mi ngi leen xamal ne bis bii bisama mu ngi woo bépp taalibe ku nekk Touba ku nekk ci Sénégal ak ci adduna bi yëpp fépp foo xam si ni nit nekk na fa di safoo sëriñ Modou Makhtar rek sëriñ Modou Makhtar mi ngi lay woo ci bisub sëriñ Gana bii di leen xam ne sëñ gànnaa ngi noonu taalibe bu mu sant la bu mu gërëm la nee na ku fi ñëw rek moom nga fi ñëwal nee na mi ngi woo ñëpp ba wut kenn mi ngi woo jullit yëpp ba wut fenn wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci turu sëriñ Mor Talla Fall mi nga xam ne moo jiite rajo Benno FM te bis bi ñu séddu ko ci cër bu mag boo xamante ni moom mënta waxal boppam li muy mën a wax waxal lépp nee na mënul waxal boppam mu jël kàddu gi ne ma naa ko nuyul kilifa yi fi toog muy sëriñ Basiiru Mbàkke ak sëriñ Baara moom sëñ Seex ak mboolem kilifa yi fi nekk népp mu ngi leen jox ab nuyoo nee bis bi ñu ko dara jële nag mu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant sëriñ Gana Messere mii ki nga xam ne daf koo jox ab cër fii ndax foogu ko fi woon te yaakaaru ko fi woon ndax moom dafa jàppee jëmmam ak jëmmi sëñ Gana muy benn nee na cant gi mu koy cant nag mooy yéene gi mu yéene woon Gana lam ko yéene woon te mënu ko cee def te suñ borom defal ko ci loolu mi ngi ciy sant yàlla bu baax nee na mi ngi santaat sëñ Gana bu baax ndax lii mu ko defal xam gi mu ko xamal àdduna bépp ne suñ mortaala ëmbeel na ko cofeel te loola di dëgg te ñëpp man koo seere noonu looloo mu ngi koy sant bu baax nee na moom de amul jenn dara ja ju mën a wootee wala jum mën a wax nit ñi nañ ñëw fii waaye ginnaaw daraje yi suñ tubaa ci la ko suñ tubaa fale fale ci gànn nee na mi ngi woo ci daraje yi suñ tubaa képp koo xamante ni wëllëreem nga wala xaritam nga wala soppeem nga mi ngi lay woo ci bis bi ne la bis la boo xamante ni diirab mu dugg ab noppam ba léegi amul lenn lu mu ko jàpp ne mën na koo méngaleel ci bëgg-bëgg wala ci cofeel ndax jëf ju rëy ji nee na kon mi ngi ci woo ñëpp góor ak jigéen ak mag ak ndaw nee na amut ay taalibe yoo xam ne da leen di wax ne leen yendu ji leen fa dem leen def nangam waaye taalibe sëñ tubaay yi nag ginnaaw ab taalibe la ci mi ngi ñaan ci taalibe sëñ tubaay yi mu sañ ñaan ñu àndandoo bis bi ñëw li ko dale ci jàng alxuraan ak xasida ak salaatu ala nabi ak lépp lu ñuy def ci bis ngir bis jàkk nee na ñu ñëw defal ko ko ci bisu suñu gànn bi nee na tamit lam koy mujje mooy képp koo xamante ni yéene woon nga koo ñaanal mu gudd fan nee na ñaan googu na ko jël wëlbati ko ñaanal ko sëriñ gànn mu gudd fan te wér ndax xam na ne bu guddee fan te wér fu mu waroon a taxaw moom mii dina ko fa taxawal te lu mu fa waroon a def dina ko defal ndax yàgg naa jël ay programme jox ko suñu gànn ne ko mu dem defal ko ko te ba ko ko defalee xolom sedd nañ nee na mi ngi feddiluwaat kóllëreem ci digganteem ak suñ ganna di ñaan bis bi dal neena na képp ku ci teew yalla na tuba tubaa sa mbir aduna ak sa mbir alakhirah yalla yalla jagal suñu mbir adina ak suñu mbir salaamu alaykum wa rahmatullah pasam ñuy wax ci turu soppe yi di fatali fàttali sëriñ Job mi nga xam mo nekk Espagne ak sëriñ bashir Ndaw mi nga xam mo moo nekk Touba Ndamatu ak soppe yi nekk fi ci sam ak kep ki ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ngi fatali bis bi bis bi dal bisub si Ahmadou Bamba وعبد الله وقديم رسول نيون تي وكيب كي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بسم الله بسم القران لا بسم قصايد لا بسم نيان لا واي بسم سنت لا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوك يي نوي شيطان دي نو ديغلو نونغ لين دي نويو دي لين شياري دي واخ تي كادوك سيرين كانام مختار di ñaanal Serigne Sidi mukhtar khalifa général de Mouride sun borom yagal ko fi dem anda ak wér ba lim yene liggéeyal Serigne Touba mu def ci lu kawe ndortam di ñaanal Serigne Moudou Muxtaar mom Serigne Cheikh Aw Balla sun borom guddal aw fanan te wéral ko ba lim yene liggéeyal Serigne Touba yene ko liggéeyal borom daru yene ko liggéeyal Serigne Cheikh Aw Balla sun borom defal ko lu ndortam euh Serigne ganna mi ngi nuyu di leen siyaare di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoob Serigne siiru nii nga xam ne ci taxawaayam bu rafet ak jàppam gum jàpp Sëñ Gànna taxawu ko teete ko ba Sëñ Gànna amu fit ñime ci liggéey bi muy liggéeyal Sëñ Tuuba nee na mi ngi sant Serigne Bassirou Thior Serigne euh, Serigne Cheikh Baara Serigne Baara moom Sëñ Cheikh Baara Khourédia nee na mi ngi koy sant di ko siyaar di ko baalu ak di ko ñaanal di sàkku mu taxaw ko ndax gis na ni ko féete ak ni ko sëse ak ni koy jàppale nee na mi ngi mi ngi leen di ñaanal ñoom ñaar ñooñu di leen nuyu di jël nuyoo boobu di ko teg ci seeni loxo mu jottali ko mbooleem ñi ne ci jataay bi ak mbooleem ahlu Mbàkke nee na it bis bi moom bisab yoonu mu di bépp la waaye nag ren jii noonu mu ko dippee sëriñ Ibrahima Diop almasari ak sëriñ Touba Diop ak sëriñ Morta suñ sëriñ Touba Diop ak sëriñ Morta Rafal mii rajo Benno nee na bis baa ngi noonu seeni loxo nee na ginnaaw ba mu ko tegee ci loxoy Sëriñ Tuubaa jaarale ko ci Sëriñ Mudu Muxtaar mu ñëw ci loxoy Sëriñ Basiiru Coro mi waaw ah, nee na ak Sëriñ Baara mi nee na ngi koy tegaat ci seeni loxo ndax kóllëre gi matte na ko jàppale gi ngeen koy jàppale gis na ko ni ngeen ko téyee gis na ko nee na kon bis baa ngoog nee na it ginnaaw loolu mu ngi ci soññ ñëpp bàyyiwut kenn nag surtout jàngalekati alxuraan yi nee na mi ngi leen ci soñu daara yi noonu mu leen ko waxee am na ñooñ tàmbali na bu yàgg alxuraan bi ña nga ca mi ngi soññi bu bis ba jotee ñëpp teel a ñëw nekk ci njàngam alxuraan bi jànkati xasida yi noonu nee na mi ngi koy soññu ñëpp bàyyul kenn nee na mi ngi soññu ñi nga xam ne ñoom la bokkal ëtt bi ñuy leeral li nga xamante ni mooy mbindam Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul muy conférencier yi nee na bàyyul kenn ka ca doon nag ba ki ci doog a dugg ki ci nam na bi nee na bàyyul kenn mi ngi sooñu ñëpp bàyyul kenn nee na it mi ngi sooñu bokki boppam yi ñi nga xam ne ñoom la bokkal deret ndax bokk ak Sëriñ Tuubaa mooy lépp waaye bokk ak deret yi daam nee na mi ngi sooñu bokki boppam yi bàyyut kenn bàyyut góor bàyyut jigéen bàyyut mag bàyyut ndaw nee na fàttewu leen ndax ginnaaw yàlla yéen a ko juddule di ko teete di ko taxaw ba lii lépp dem ni ginnaaw ñaan ak sëriñ bi kon nee na mi ngi leen di sant di sant waa presse bi nee na seen ab taxawaay rafet na ñu leen di ñaanal suñu borom taxaw leen wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di ñaanal cheikh sidi al muxtaar suñu borom bàyyi ko fi te doli ko kàttan ba yéeneem ci lëggéeyal cheikhul khadim mu defe ko ni ko sool te ànd ko mboolem julit yëpp di sant suñu borom bu baax moom mi ñu ban mën a bi ci aktal ko kilifa yi waxe rek bis bii nga xam ne moom lañuy woote sëriñ Gana Messere di ko amal di ci sant sëriñ Touba delloo ci njukkal Serigne Touba ñaanal ci itam wuy juróom bis boo xam ni ba mu ko dalee def ak léegi mat na fukki at ak lu teg suñ boroom di ca nef ak nangoom di yokk itam xéewalam ba daaw jéeg suñ boroom def ci tawféex wasilaam sëriñ Moodu Maxtaar Mbàkke defal ko ci ak ngan boroom borom def loola gën a dolliku fen ji itam sëñ bi fas yéenee def noonu mu defoon ñëwaat yendu si waat ci bis bi moo waral woote wiin wi gën a yaatu ba waral nii ñu ko wootee ñu wootee ko ni mu jëlit cër ak cofeel ak yéene joo xam ni am na ko ci lenn ci ñi muy amlanteel niñ ko jàngate léegi ci njëlbeen gi Cheikh Ibrahima Diop almasar yi ak Serigne Touba Diouf moomu Serigne Mortala ak Serigne Isma Diouf mi nga xam ni lu ci ne day fedd feddli rek ak kóllëre ndax ku yàgg a teewlu jataayub Serigne Ganna Messere ci bis yi muy woote da nga dégg ne dana dàkk lenn ci mag ñi tudd leen bis bi ñenn ñi mu dara jaare leen ko dara tegtalewul lool nag lu weesu amuk cofeel gu mu am cofeel ci ñoom ak it xam tolluwaayam digganteem ak sëñ Touba ndax lenn ca mag ña lan waxoon sëñ Touba ni ko ëpp nga nub sëriñ te matuñu lay taali bi waaye noonu la la yàlla jox looloo waral muy làmb ak araas fu mu ko mën a daje rek mu daje ko fa noo ngi woote nag bis bi ci niñ ko daan wootee ci mbooleem ñi nga xam ni suñ borom dalay na booleeg sëriñ Gana Messere ñu bokk ak moom di bokk ci deret ci géño ak meen te bokk ak moom mbooleem yeew gépp nga xam ni buñ leen tuddee ñëpp nga ca biir muy mbayeen ak njóobeen ak mesere gi nga xam ne ci la gañëwoo di woote nag mboolem dëkkandoo yi nga xam ne ni ko kilifa yi waxe ku gis sëriñ baara moom sëriñ seexum sëriñ baara xuraja gis sëriñ basiiru coro mi da xam ne am na ak ñi ko yàlla booleel ñu nekk ci kër sëriñ tuubaa gi di sëñ tuubaa looloo waral woote bi di law jaar ci mbooleem saamu sëñ baara xuraja ak sëñ ab latif mi nga xam ne ñoo siq sëriñ gànn messere waaye woote bi law nag ba dem ci tuubaa génn ko wër sénégal dem ci mbooleem àddina si yëpp foofu fi nit nekk rek ñoo ngi lay woo ci bisub Serigne Gana Messere boobu nga xam ni moom lañ war a amal tombeek benn fan ci weeru février mu doon alxamis jëkk buñ jugee Poroxaan woote bi itam niñ ko Serigne Moustapha gi waxee léegi rek ñoo ngi ciy woo mbooleem daaray alxuraan yi nga xam ni wëlërante na ak Serigne gànne Messere Maxtaar di am lanteeg moom te dara jiituwul ci bis bi alxuraanul karim ndax mooy bëggu Serigne Touba di ci woo mbooleem ëxlu xasida yi nga xam ne jànkati xasida yi lan wëllërante ak Serigne Ganna Messere Maxtaar ak mboolem conférencier yi nga xam ne ñoo ñoom ñoo bokk lu ñuy def sëñ Ganna nee na mi ngi leen di woo ci bis bi ngir ñëpp ñu mën cee ñëw ànd la ko sant la ko ci sëñ Touba delloo ci njukkal sëñ Touba. mi ngi ciy woo itam mboolem dëkkandoo yi nga xam ne moom la ko yàlla booleel nga xam ne démb ba tey kenn ku ci ne ci ñoom lu ci sëñ Ganna Massa woote dañuy génn seeni kër génn seeni néeg defar ko ba mel na mu war mel teertule ko ay ganam def ci seenub coona kenn ku ci ne ci ñoom. sëñ Gana nee na mi ngi lay tàllal loxo di la woo ci bis bi waaye ku ne xam na ni fu ñu tudde góor gu baax danañ fa tuddee jigéen ju baax te sëñ Gana suñu borom boole na ko ak jigéen yu baax yoo xamante ni ñoom la nekkal ci biir këram ñu di ci dabu liggéeyab Sëriñ Tuubaa ci moom di jaamu yàlla ci moom te jaare ko ci soxna la Faal mi nga xam ne mooy seen jiit waaye seen kilifa nekk ci biir kër gi di soxna maam Jaara Mbàkke di doom ci Sëriñ Moodu Maxtaarum si xaw bal la mu jox ko ko mu nekk ci biir kër gi ñoo ngi woote itam ci mbooleem soxna yëpp ñi nga xam ni suñ borom dogal na ñu nekk ci koñ bi ci turu soxna yi ñoo leen ci woo ngir ñoom ñëpp itam ñu ñëw jàpp ci liggéey bi bu baax ñoo ngi woo itam mboolem ñi nga xam ni ay autorité lañ te suñ borom dogal ñu nekk ci dëkk bi te am lante ak Serigne Ganna Messere mën nañ koo tënk rek jaare ko ci Serigne Modou Mbacke Fall mi nga xam ni moom mooy sous-préfet bu tuubaat ci côté administration jaare ko itam ci ki nga xam ne mooy commandant ñaa mi jiite mboolem gendarmerie ak commandant Diagne mi nga xam ne ñoo jiite mboolem police ak mboolem corps yi nga xam ne dañ fay nekk ci wàllu administration te itam seen jëflante ak Serigne Gana Messere mate ko ñoo leen di woo ci bis bi. di ci woo mbooleem dayre yi waaye fàttewuñu presse bi nga xamante ni yi dañuy wax ni dëgg bu lekkee olom na ko gërëme coy te lépp fu mu jaar rek ci ñoom la jaare mboolem site internet yi mboolem télévision yi mboolem rajo yi kenn ku ci ne ci ñoom ñoo ngi lay woo waaye ñoo ngi fàttali itam communicateurs yi nga xam ne ñoom it dañoo jàpp ci bis bi ñoo ngi leen ci woo ci bis bi góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwunu kenn noo ngi fàttale itam ni bu nu ca àggee jàmm incha allah ba ca bis bi bu nu xëyee ci suba si danañ jàng alquranul karim niñ ko baaxoo di defee gàttandu itam Serigne Modou Makhtar moom si xaw balla moom it ngan gi nga xam ne da koy defal Serigne Gana Messere Makhtar ci bis bi bu nu xëyee ca suba sa danañ ko gàttandu teeru ko teral ko bu nu demee nag ba tàkkusaan incha allah danañ fi amal waxtaan wu am solo woo xam ne day jëm ci soññee ak laabirante ci suñu biir waaye itam siyaar boo xam ne dañ ko def sëriñ bi ak mboolem kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk si noonu itam lan koy fanaane incha allah bu ñu demee ba ca guddi ga ñu amal njàngum xasaayit cérémonie bi nag du ma ne cérémonie officielle lay doon waaye cérémonie religieuse lay doon waxtaanu murit lay doon woo xamante ni day am fu mu tàmbalee am fu yem mooy dale ci sëñ bi yem ci sëriñ bi kon daal dana am ay bernde itam yoo xam dana fi am ndax ku tudd cant tudd bernde nan ko waxee rek bu nu xëyee suba incha ba jàng alxuraan ji ba noppi danañ def ay bernde togg ay añ añ ci togg ay reer itam xam naa paaleen ñeeg jangeen ñeeg ñëpp ñoo ngi leen ci woo ci kàttanu sëriñ bi bu ñu demee ba nga xam ne nag waxtu guddi bi jot na jànkati xasida yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak bitim réew ñëpp itam ñi teewee bis bi noonu lañ koy fanaanee jànge ba bët set bis bi tamit lay doon février incha allah fii lay doone itam ci saamuk Serigne Bara Khourédia fii nga xam ni moo tollook jalu xeer képp koo xam ne da ciy ñëwit bu ñëwee ci pencum Serigne Bara Khourédia kër gi mi ngi koy féete gànnaar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa kër Cheikhul Khadim ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci tuuru السيد المختار مكي خليفة الشيخ الخديم دينان سن بروم مو يوكو كو وير تو شيخ الخديم جي ييب ني نييو بو ام سولو ولا بوك دي واجال بيس بو خامي ني بو ماغ لا دوكو غنا ماغ تا موي ak fàttaliku kan cheikhul xadim mi nga xamee ni bi yàlla ne laqad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasula waaye mu tegal ñu ca cheikhul xadim loolu di xéwal goo xamee ni xéwal mënu ko weesu la kilifa gu baax go doon wax cheikh mahamadul fadil ndokke ñun ëpp nu yeesu ñu gémmin jàpp ñu ñu ba dem señ tuba soog a ñëw sëñ Tuubaa ba dem ñu soog a ñëw dañoo fekk jamono señ tuba genn jàpp ñu ñu and ak señ tuba señ Bamba rek di señ Bamba alhamdulilah rabbil alamin señ Sidi Muxtaar sant lol ci bis yi demee ni xam lol señ ngand Mesere deggi ko lol ci nimi taxawale Cheikhul Khadim jotaay beurep bu mu dem Cheikhul Khadim sigifa ñu umpale won serigne Touba ndax serigne Bamba kenn bañu ko dañ ko umpale rek way ko xam serigne Touba bëgg ko serigne Gànna nak taxaw ci jihad bu am solo bo bi serigne Sidi Moxtaar diko ko waxal ne degg na ay waxam xam nako itam tam min nako mi ngi seede ak talibim diko ko nangul ndax famu bok dafa melni ñofa bokku cër muy serigne Cheikh hawa Balla borom darul ñu xamé ni leppam fofu la kon nak tay ji bu bokké ci li nee na kon loolu euh, da cay sant di ko ñaanal bu baax a baax di soññ ñëpp ñu taxaw ci bis bi jàpp ci bis bi xaj na ab tàgg bu ne du ñàkk euh, ci jàppal ci diw mbaa bokk xamu ni ko wolof di waxe euh, ci sëñ Gana Messere d'accord moo woote bis bi waaye bis bi bisub Cheikhul Khadim la bisub Serigne Touba la kon nag mi ngi ciy soññ ñëpp di woo ñëpp di seede itam ne ning nyanal, ko ci ñaanal ning ko ci sant ning ko ci gërëm di wo mbolé mbokk taalibe yépp di jappalé ko ci bis bi xamné ne bisub Cheikhul Khadim Serigne nak day ko xamé ni ku am jom la waye ku am ngor la waye borom xel la baraani ñu Serigne Touba defal ña sante sax waye sant bi mi sante jël leppam wiide bopam leppam nak la wax leppam lay jël jox ko Serigne Touba ba bu xey so du am dépense bu mu dépense nga xamé ni man ak ñeneen ñun ñepp Serigne Touba moo ñu defal euh pas-pas ak taxawaay bi mu ci am lolu neewana te kum am waaye nak mom dafa xamé ni leppam Serigne Touba la ni mu mel bañ koy dégg ba ñepp di safo ñepp and ak mom jotaay bi xool ko ni mu couleur ñëw fekk fi sëriñ Mamor Diarra fii ci saam sëriñ Baara Mbakke mii nekk fi waaye xoolal waa Daarul Muxti ak mboole mbokki taalibe yépp ñëw fi ñu dara jaale kan ki nga xamee ni li ko daloon moom la sëñ Gana Messere yëgaat ñëw andi ko fal jamru fii xaladi yushwa biha kabidi wa daa u fii jasadi qad amma aada yi mu daal di ñëw taxawaat yëg loolu daal ni déedéet soxlu ma lenn man cheikhul xadim rek waaw euh, gisutul lenn lu dut jaay léppam maa lii li bax daada laa wala faasi lakin biir uyaa jolof xat bixatu an faasi muy lu am solo mu tudd ko jàmbaar ju mag joojee nga xamee ni ñoo ñu ay euh, jàmbaar lañ mm-hmm. ñooñu ñoo taxawal yoonu murit ñooñu ñooy yoonu murit waaye itam mu tudd kan sëriñ Touba Diouf sàng maa ngi ciy waxtaan jëmm joo xamee ni ah maamam bokk ci ñi eh, njëkk ànd ak sëriñ Touba ci Mbàkke Kajoor ju njëkk ja bi ñu sant ci Mbàkke Kajoor loolu itam wax dëgg yàlla xoolal fa mu ñu jëlale mag ñoo ñi nga xamee ni mënuñoo ñàkk ci sëriñ Touba mm-hmm. ñooñu ñooy Cheikhul Khadim ñu indi leen tegaat leen ci jamono jangat leen te man arraxa waliyan fa ka annama ahya mu andi wat ñooñu ñu fa xam kan al mashari ñu xamaat ke ah sëriñ tuba juuf itam mom moy kan akuk njabotam ah eh, lu am solo la te mom bu ande kenn rek du ni sëriñ tuba juuf la ñuy jàngat du ni cheikh ibrahima al mashari la jangat waye ki jangat moy kan moy mbolé magi Serigne Touba yi moy Serigne Touba la jangat jàngat mo andi indi nga xamé ni ñun daal la nu farriqu bayna ahad min rusulihi ñom ñepp non lañ toll kon nak Serigne Sidi mi ngi am bekté bu baaxa baax di sante yitam ak ñaanal Serigne Muudu Mokhtar mom Serigne Cheikh Awa Balla ak mboolem njabootu Serigne Cheikh Awa Balla gogi waye di ci Serigne Gana Mesere ak mboolem mbok julit ak mboolem mbok talib yi yépp di sante ñepp di ñaanal ñëpp waaye itam di sant ki nga xamee ni eh, di borom saam di sëriñ Baara Mbacke bi nga xamee ni fii moo fi nekk tey jii moom la sëriñ Tuubaa sédde fii sëriñ na Messere ñëw dëkk ak moom kon nee na moom it mi ngi jaarale ziyaara bi ak nuyoo bi ci moom di sant ñëpp di woo ñëpp di soññ ñëpp daan ni daal bis bi bisub Cheikhul Khadim la na ci ñëpp jàpp na ci ñëpp ñëw bis bi du du bisub sëñ Gana Messere waaye Cheikhul Khadim moo ko tax a jóg. mboolem kilifa yi fi yëkkati ay kàddu wax nag ci turu ci bis bi ci turu sëriñ Gana Messere kon ñu ngi woo képp ku naan asadu an laa ilaha illallah wa asadu anna muhammad rasulullah di woo mboolem taalibe sëriñ Touba yëpp bis bi nag comme ñu ko waxee rek ñu ngi ko dara jaale sëriñ Ibrahima Diop almashar dara jaale ko sëriñ Touba Diouf waaye itam xam ngeen ni sëriñ Mor Talla Fall digganteem ak sëriñ Gana Messere waaye xam ngeen ni sëñ Isma Kebe mii toog moom it digganteem ak sëriñ Gana Messere muy wëllëreem di xaritam di taalibe sëriñ Touba boo xam ni jëfal sëriñ Touba ak liggéeyal sëriñ Touba rek moo ko ñor mu wëllëranteeg sëñ Gana Messere moom it mu bokk ci ñi mu dara jaale bés bi. kon bis bi ñu ngi ciy woo monsieur le maire Abdou Ka di ci woo itam chef de village sëriñ Abdou Lahad Jaxate waaye di ci woo itam sous-préfet Modou Mbacke Fall ak honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga waaye di ko yëgal itam monsieur le ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf ak mboolem taalibe Serigne Touba yëpp daay daayira yi daayira yi ak daara yi bés bi nag programme bi dégg ngeen ni ñu ko waxee bu ñu xëyee danañu jàng alxuraanul karim bëccëg ñu amal bernde ginnaaw timis la ñuy amal cérémonie religieuse bi ñu ciy woo ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.